Mbàkke la ilaha illallah Mbàkke la ilaha illallah Mbake la ilaha ilala Mbake la ilaha ilala Mbake la ilaha ilala Mbake la ilaha ilala Fala ilaha ilala Fala ilaha ilala Fala ilaha ilala فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله مام زغرو فلا إله إلا الله مام زغرو فلا إله إلا الله مام زغرو فلا إله إلا الله Mbàkke la ndey munul bàyyi jéemu ko ay dëkkandoo naan ki yàqu na Mbàkke tagoti ndey tagoti baay ay dëkkandoo naan ki yàqu na waajur wa naan kee sanku na baay aboo delu defar la ndey munul bàyyi jéemu ko ay dëkkandoo naan ki yàqu na waajuurwanaan keessaan kunaa baay aboo deluu defar fala ilaha illallah fala ilaha illallah faal arjana yooy mangayriir ay gaayu baax yee eh, eh, eh, ko yengal mbake arjana yooy mangayriir ay gaayu baax yee ko yengal fala ilaha illallah fala ilaha illallah Get him, get him. ñoom ñoo ma yoon yónni man nag euh, ndaw laa ci waruma sax ñëw fii toog di wax mais comme ñoom ñoo ma yaakaar te wóoluma encore ma ne comme noonu la bàyyi ma jéem ndax man waruma nekk fii sax toog sa kanam di jël kàddu waaw bu ba ñaawul nag ñoom nag bu ñu ñëwee euh, boole nañ waxtaan nañ juboo nañ seen biir boole nañ boole nañ li ñu am lépp nag di ko xeeb di ñaan yàlla nag euh, nga ñaanal ñu suñu Mbacké bu ko defee incha allah balaa ñuy ñëwaat fii déwén incha allah lépp lu ñu fi indi mu gën a bëri ñu toog ba ñu toog ba ay at at euh, lépp loo xamante ñun lu ñu ko war a def lu ñu war a def ci kër gi ñun ñu toog di ko def incha allah nga toog yàgg fi lool de wër ñun ñu fi nekk yëpp nekk ay ndaw nañu góorgóorlu bu baax man nag euh, Touba jàgg laa dégg yàgg nañ ci affaire bi nag xam nañ lépp lu mu demee mais incha allah ci kanam sëñ Abo fas yéene bokk moom mbir mi ndax mbiri sëñ Baara moom koo ci woom war la cee wuyu sëñ Abo nag mun ñu koo fay ndax wax dëgg yàlla sëñ Abo mun dañ koo jox suñu rak tourné ànd moom nag fas yéene koo tarbiyu ba bëgg moom mii jaw mu am ko ci moom ñu dund ba am ci sëñ ay Aïssa ak sëñ mbaar ci barke sëñ Baara ñu ngi lay tarbiyu nag di yeesal suñu njëbba man nag mënumaa wax ci mbooloo waaye suñu xol sedd na guy ñun mbokki Ndumbe dina guy wax dëgg yàlla bañ la xamee ba nëgë ni jox la soxna Ndumbe mi ba nëgë ni gisuñ ci dara dara lu ñu naqari gisuñ ci Ndumbe dara lu ñu ngi di yeesal suñu njëbbal nag di ñaan ñu baax luñ mën ren bu déwénee ñu man lu ko sëñ Baara luñ fi def ren rek déwéne def lu ñu ñaan nag ci sàkku ci yow ñu baax ñu ko indi ñu bu déwéne ñu mën li ñu fi indi ñoo ngi ziyaara suñu yaay ji di waajur ndumbewu jigéen nii ndax man naa ndumbe ku gis xam na maa ndumbe ñoo bokk ndey ndax ba ma xale laa nekk ci këram gii ndumbe mii ñii mu mel du liñ koy jur nag du liñ bokk moom du liñ ko yar waaye nii mu toll noonu la toll boo demee ci kër gi da nga naan dafa jaboot ndax xale bu nekk ndumbe boot na la bu nekk ci ñun ñuy wax sa doom ngi ci ndumbe mu koy jànguloo di ko jaarloo lu baax di ko defal lu baax ñu ngi koy ñaanal ci barke sëñ Baar li na la ñoo ngi ziar nag di di di yeesalaan njéggal di jéggul bu baax nag ci kàddu yi. alim wa surriyataha min a seytaane rajim ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل لقة من لساني يفقه قولي barke borom Touba barke borom Touba barke maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina barke maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina barke Cheikh Mouhamad Lamine Bara barke Cheikh Mouhamad Lamine Bara mbooloo mi fi teew ñi ngi nuyu ñëpp leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di jiital ci nuyoo bi alxalifatul am fi tayfati muridiya Cheikh Muntaxa Basiiru Mbàkke di ko ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te ndax ay yu bari jaar na fi waaye moom de mel na ni ayam gi genn dàqu ndeysaan sëñ Tuubaa mel noonu dani sama tay ju ne dana gàccaal sama démb ndeysaan bi sëñ Saaliw demee dañoo jàppoon ne mbir mi fi lay yem waaye xoola Cheikh Muntaxa ndeysaan bàyyi laat daa laaj ñaari milliards ñu ne xamul jamono naqari jamono di laaj ñaari milliards ci mais kii dafa ñëw laaj 37 milliards kooku mooy Cheikh Ahmad Bamba kon ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi ban naa lim naalal maamam Cheikh Ahmad Bamba mu yeggale ko ba naalaat naa leen toll dañ fekk ko te ànd ak moom lépp ci barkeb sëñ Baara noonu lañ koy ñaanalee. cheikh Moussa Mbakkeem cheikh Sidi Muxtaar di xalifa guy mbind di sunu yaakaar jiite njaboot gi yëpp yàlla na fi yàgg lool cheikh Moustapha al Karim ndeysaan ak a baax te moom daa bëgg sëñ Abo cheikh Moussa ndeysaan dañu dañu ëboo yow yow Fatick nga nekk waaye man nga fa nekkal nee na ko sax danaa la fekk Fatick ba mbaar ma bara dal sëñ Abo liggéey na ko ndeysaan <laughs> seetal li sëñ Baara ak njabootam da leen suude dañoo ànd ñu bari xamuñu waaye ñoom benn jëmm lañ gis nga doomi sëñ Baara yi sëñ mu day sa baay bu masaa ñëw ci sëñ Basiru Baara day sukk mel ni dongab daara du ko xool dàll yi mu soloon ci buntu kër bi la ko summee na ma téyel ma ko summi mbaxana mi def lem ko def ko ci poos bi ni ma jiitul yaay yëglu bu ñëwee da koy buux addi ji sikk def def jël loxo yi dugal fii day sa sa suñ ma moo day sa na mbokk taalibe bi nekk dafa ñëw sëriñ bi ñaanal ko ba muy dem ko mu toog mu ne ko moo day sa te ma li ma lay dogal mooy ku yàlla du man ci yow dara daal ne ko ku yàlla bind ko wax man ma ñëw toogak ak moom mu ne ma ci sëriñ balaa jóge tey de lim ma wax ah ne ma Ibrahima nee la ma ku yàlla bind du la mënal dara daan ne ma wax na ko jeex na ne ma saama ga ma ko wax nag <laughs> ah daan ne ma amoo loolu de Cheikh mu doy sa Mbàkke daa fonkoon ay kilifaam ànd nañ ca Cheikh Sidi Muxtaar màggal gi mujj def fii ànd ca suñu Xaadim màggal gi mujj def pour ñëwee gis naa na mu def ban demee ci Cheikh Sidi Moukhtar daa tëju woon ñu ne ko sëñ mu day sa mbàkk ñëw na ñu ngi ci biir kër gi mu daal ne tël boot loxo yi dañ ko ko yëgal rek gaynde ga ne tël boot loxo yi toog sëñ Modou ne ko foofu àddee ji sëgg na ceel ñu jàmm sante sëñ Sidi Moukhtar daal di dugal loxoom ci suufu pliant bi daal di luxeet génne ay taxañ bi mu ko nee taxeet ay gural la mu sëkk ci ab sëkk bu am solo tàllal ko Cheikh Modaay sax ma gis ndeysaan ni mu doon jëlee gure ga ma ne lii du gure lii du gure <laughs> bi mu ko ko joxee ni mu ko dencee laa xam ne du gure moom suñ <laughs> suñ lu moxtaar mu ngi ànd nag Cheikh Modaay sa bàkk yëpp mu xar gure ga xar ko ay ŋadd daal di nuy dinu xool ci mbooloo mi dinu teq dinu teqi di ku ne mu tëggalaw ŋadd man mii damaa man la mujj dóor aw ŋadd def ma nii ba séen ma ne ma ko tay ma ne ko mbàkke dolli ma weneen ndax ngàdd woo xaye doomi sëñ baara moo la ko dóor baax na dóoraat ma ko mu ne ma yow jëlal lee yóbbu ko fee ay matériel yu newoon foofa nit ñëpp ni bërit mu ne kii laa wax fii lan départ ci ëtt bi keroog suñ mu ne su ne ma oto bi am na place tuggal ci biir Ibrahima ma xëcc maal arrière bi fi ñuy def wëlis yi dugg fa banque samay tànk mu ne ma moo ne oto bi am na place de ma ne ko mbii laay dugg mu ne ma lu tax ma ne ko bagage la mu ree fii ci ëtt bi bu wëndeelu ne saam dëkk ko muus na de waaye ban dëppee ci sëñ Sidi Muxtaar sëñ Sidi Muxtaar ñëw liggéey liggéeyloo ma fa tuuti bi ñu génnee sëñ moo dani ma doo dugg ci ginnaaw tey ci maal bi ci sees yi ngay toog <laughs> ne ma ci sees yi ngay toog kooku mooy Cheikh Modoy sa Mbàkke sa baay ba dama ne gaynde du juum xar takkul ne sa maama man ci réew mi loo ragal ragal wala xongali bët kii mooy Ebo Madiyana borom Tuubaa yëmbal nee na bu ñu respecté murit ci réew mi maa tax sëñ Ebo sa dundoo daa sillonné Sénégal di wane baatin waxtal ba murit yëpp ñu jox leen cër sëñ Bachirou Baar ne ma aboo di def na loolu ñun ñëpp ko man nag waaye moom wane na ma ba tax ma ne la gaynde du jur xar gaynde du jur muus kuñ la sa maama man cim réew loo ragal ragaloo xool nga li bët sëñ aboo yow yaa toj siin ñëw naa fa sa mag ji oh, li mu wax dama koo seedeel ne ko kii day liggéeyal maama Cheikh Ahmad Bamba. mboolem magi sëñ Abo yi nga xam ne tey jii ñu ngi ci biir kër gi ànd ak moom bis bii. nee na loolu da koy wax ginnaaw bu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasulullahi. nee na mi ngi nuyu di ziare sangam bi suñ ëppam Cheikh Moday Mbacke ni nga xaaye ni la ko ñi fi jaar ñépp defee muy mbooloo mi fi teew ñëpp niñ ko saabanteeg moom ziare ko mi ngi koy ziare noonu. nee na di tuubaat nag bu baax a baax a nee na di ko jéggalu bu baax a baax tamit ndax nee na. dendandoo yi ñuy dend ak moom ak jataay yi danoo jomb nee na sëñ boobu mii nee na yaakaar na ni wax waxaat li tubaab di wax la répé la répétition et pédagogie ndeysaan tubaab yi dañ la répétition et pédagogique <laughs> kii bi ñuy ànd ak moom nee na ñun ñi fi toog ñëpp ñépp ñëpp kenn ku xam sang bi di Cheikh Abou Madianam Cheikh Modou Aïssa Mbacké te nee na xam naa insha allahu rabbi ca kanam rek lay nee na mi ngi dellu di ko santaat bu baax rek di taam ci kanamam di tuub di jëppalu ci moom di ko jëppal boppam di ko wax ni moom daal Mbàkke moo nu moom bu ne weex na nu ne weex na bu ne ñuul na dun ne ñuul da dan naan kukk ala kuliyaalin noo fas yéene rek doon am ay jaamam fu nu joxo rek foofa la ñuy jaar nee na moom day soxna ndumbe daa am ak jagle spécial goo da ko am ci siñe buum Nena, ah ñi fi tok japp na ne xamuñu suñu bo mi de manan na baña wax sax ndax mom bëggul waxi ngistal nee da dafay bëgg def rek ab sédé mu ndaw ngir ñi xamul sëñ bi xam ko nee bamuy nek étudiant nekk jang ba paré war a am liggéey mu dëgër lool nee na mu fekk ko ci barab ñu koy siyaar nee na jëmm jee doon wax sànq nee na sagatal la ko fekk mu ne ko am na sëtu sëñ baare bu fi ñëw tey nee na mu dem ziyaar ko nee na daal di koy wax li mu bëgg lépp mu ne ko danañ la dimbali incha allah. nee na daal di yëkkati ay kontagam jox ko ko nee na bi mu demee ñu déggante mu ne ko kayit yooyu ngay wax pour am liggéey déposé ko nee na mu déposé ko nee na ba koy déposé moom daanaka amul woon yaakaar ci ne sax danañu ko jël ndax booba fu ne daa déposé déposé ba sonn rek muy disposé saa bu déposé rek du am dara. nee na sëñ bi daal daal di def ay xar baaxam nee na fi saa si mu daal di am contrat bu ndara benn prestation de service bu ndaw rek nee na mu ñëw rek daa ko koy xam xibaar nag wax ko sëñ bi daa ko wax ne ko incha allahu bi da nga fa am contrat bu dëgër bu baax. ba noonu gis nga ko nii nee na mi ngi sant yàlla bu baax ndax nee na mi ngi yore ay njaboot. moom mii nag ginnaaw yàlla moo tax ku la defal loo mën mooy sab sang nag nee na nun bu ñu deful lii du na ay gor de nee na li muy def day jéem a fay waaye fayut bor bi de nee na moom daawan lépp lu am jël jox nee na bu dul woon ak njaboot gi mu yor ak responsabilité lépp lu mam bii la koy jox ndax moko defal teranga bobu non neena da bëgg ngeen xam lu waral li ndax buñ déggé sëriñ bi amna soxna su yes rek dañ nan ko bes ko bes sëriñ ba amna ko bes fekk du loolu da am leneen lu waral loolu. ñun dañ ko wara liggéeyal ba dé neena mom mi ba bu dess gor da wara liggéeyal sëñ bobu bi ba xëy baatu rek. neena waye waye waaye de. lool day la jàpp teraanga jooju mu ko defar waaye du du ay ay borom këram borom ay soxnaak yooyu ak yooyu. man ñëw na ah waaye man kay ñëw naa ba ci kër gi nga toggal nu ceeb boo xam ne neex na lool wax dëgg yàlla <laughs> boole kooki rek waaw. waaw yaay Ndumbe nee na mi ngi sant sa ñëboo bu baax a baax a baax a baax ndeysaan. abo ndax nee na sa liggéeyu maam bii kot la nam ñoom amul leneen nee na ndumbi mii di lum ko jur tax wante ku am ngor la wane na ko déggoo lim wax nee na ñii mu àndal ay xele lañ ñoom ñëpp waaye ay xele yu am ngor la waaye suñu aboo mii gis naa gis na ci moom ngor. gis na gis na ci moom yaakaar. kon moom sant nañ ko baax Mbàkke. sant magam yii ñu ci biir ñoom ñëpp sëñ Abdou Karim ak. ñëpp rek. mi ngi leen di sant. numbee ki magam ak i rakkam ak i najaayam ak ñëpp mi ngi leen di sant. sëñ Abo. yaay ndumbe nee na. ba ñuy fekk jóge siin dem Ndar. Seydi ji bursin bursin moo dem waaye laataa mu dem képp kuy borom xam-xam siin képp ku yàlla may siin booloo nañ am fu ñu jaar ak seen bursin am luñ ko day day boo demee loolu la wax du ci teg dara dem bi na du ci man dara te Sëñ Tuubaa booba xam na ko bu yàgg tey doog a ñëw te booba taxuñu dara lu du doxali na Cheikh Rafal ndaxte amaana bari na li tax bu ñu nee séeréer rek ñuy naan ceddo ñun duñu ay ceddo du ay xam nga ñan le neveu de Soundiata keta l'empereur du Mali mais j'ai fait l'histoire ne on a fait l'histoire on a fait l'histoire on a fait la préhistoire nous connaissons les résistants de l'Afrique de l'Ouest Et le premier résistant de l'Afrique, et le seul résistant de l'Afrique, c'est Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. li tax ma génnee lii mësuma ko def mësuma ko wax mësuma ko wane sëñ aboo mii moo tax gis nga fu dara newul sëñ Tuubaa moo fay def dara kon sëñ Tuubaa bu dadoo dem léegi mu mat 100 ans en 1927 la sëñ Tuubaa dem dugg nañ 1921 di waajal 1922 léegi ñu dugg 1927 muy 100 ans dans la terre mu yebal setam siin fu mu mës ta yebal kenn ku dul Cheikh Modibo la Seex mu ñëw yeesal waaye mu deret mu jële ko ci deretu séeréer am na lu tax ngir mën a dugg seen biir la ku dul deretu séeréer mënoo dugg ci biir séeréer koo mën a doon waaye ba mu doonee Sëñ Bamba doon Sëñ Baara nga xam ne ku seex ku seex yàllaax siñ baara ba mu juddoo fii ci jumaa ji fii la yeewi mag ñi la woo mag ñi la seex rafal dikk mi wone bamba wone Mouhamadou lamin Baara ne siñ bamba day am na gan bi waaye tey ji naaj du am ndax gan gi mu am daa jël tànk bi teg ko ci naaj bi kookoo xam siñ Tuubaa moo xam Mouhamadou Lamine Baara te kookoy kenn taalibe Sëriñ Tuubaa mooy maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne aboo rijaalullahi ba mu koy wax booba kenn xamul ne leer gi dana ñëw muy aboo rijaalullahi gii na ànd ak dal rek na ànd ak dal bàyyi naa yooyu sax bàyyi naa yooyu kon nag na ànd ak toog leen rek toog leen toog leen li yàlla wone ku ko wone yàlla wone na ko ku ko nëbbu tamit yàlla wone na ko mbindeef mënu ci dara sëñ Modou Aïcha moo ne kii suñu borom li mu dogal ci moom kenn mënu ci dara sëñ Modou Aïcha sëñ Abo li yàlla dogal kenn mënu ci dara li ne ci moom yàllaa ko dogal kenn mënu ci dara mooma ko wax waaw te bam ma koy wax sama dëkku maam nga xam ne foo mën a bokk ñëw nga ba ci sa maam mu am lu mu seex ak yow ak barke boo mën a yor ñëw nga ci sa maam ngay président jële ko ci Senghor ba ci Macky Sall gii ku ci mësul teg tànkam ci sa maam amut ba taxoon na sëñ Abo ba mu tàmbalay woote siin mbake mbake yi fa daan ñëw sama dëkku maam taxoon na ba man mii Amna na benn bés mu am mbake mbake bu ñew ci samam pan ru arrière fek ma ci bir kër ga dañ ma fogg ne ma hé am ku sant mbake da pan mu ngi fi ci bir kër gi mu yaakar ne nu may dukki dukki ci ginaaw señ amo limay ci ñu may naan ki da ñak fayda ak ay nangam nangam man na tax man ku neew ku ne ñu yaakaar ne damay woné fofu ñak fayda da man leen ñi dañoo xamut da nañ xam ma gaddu sama eleer def na ma daan def rek romb dem ndaxte booba gisuma jamu ji wax nañ ma ko waaye gisuma ko wax nañ ma ko waaye xaw ma ko te gënul gisuma ko te dara ma ndax te siñ aboo lañ ma booleel te siñ Modou Acha moo ma booleek moom te lu dul siñ aboo xam naa ne ku dul siin siin ku dul siñ aboo mënul la dara ak moom bu ko weeti laajal baay ja aboo moo ñu moome moo ñu booleeg moom aboo yaa ñu moome bi wax ah, mbokk taalibe yi bi mi ngi wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa nee na ginnaaw buñ sant yàlla sun borom tabaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama ñu jottali suñuy cant ci ku tedd gi Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul di ñaanal al xalifatul am taybatil muridiya Cheikh Muntaxa Basiiru mu yàgg fi lool te mu ànd ak wér nee na noonu la koy ñaanalee ab xalifaam Cheikh Moustapha moom Cheikh Sidil Muxtaar xalifa guy mbind nee na di jaajëfal ñépp nag ñi fi teew nee di ko tàmbalee nag

Euh, sëñ Moustapha noonu la koy ñaanale magam ju tedd gi muy sëñ Abdou Karim Mbacke mii ci biir nee na mi ngi koy sant bu baax moom it nee na noonu la koy ñaanale nag njabootu sëñ Modaay sa gépp góor ak jigéen mag ak ndaw nee na di sant nag mbokk taalibe yi nga xam ne Serigne Touba da leen a jaral lépp. Serigne Touba bu mag bii. sëriñ bi nee na mi ngi ñaan képp ku fi ñëw rekk yàlla la yàlla defal jàmm. nga ñëw ci jàmm ci màggal gi waaye delluwaat ci jàmm ci màggal gi. nee na yàlla moom tëlewut dara mën na ko yàlla na ko defal ñépp loolu na bu loolu weesoo nag. yéen ñi nga xam ne yéen bi. nee na yéen ñi nga xam ne du maamam xewlee yéen a ko wuyu si gannaaw sëriñ bi. maa leen di ndokkeel. nee na mi ngi leen di ndokkeel. di leen jaajëfal bu baax. ci ànd gi ngeen ànd ak moom ci liggéey bi. maa ngi nii daanaka yàggu ma ñëw nee na mel na ni yàggula a ñëw mi ngi so mi ngi nii di soog a ñëw. nee na juróom-ñetti fan a ngi yoo xam ne dallu sax defu ko. ndax liggéey bu diis rek. te xam ne it liggéey bi li muy diis diis lépp ci ndigal rek la tegu. ndax képp koo xam ne dangaa yëkkati sab loxo ne Baay Faal laa rek. daanaka rek booba la coono daal tàmbali. kon nee na loolu moom du ko jàmbat. kon mboolem koo xam ne màggal si na. wax na ni mboolem koo xam ne ñëw nga ci màggal gi. muy dayre yi. di sappe yi. di xarit yi. di mbokk yi di ñëpp. nee na moom day mi ngi leen di sàkkul ci sëriñ bi ngërëm amin nee na am na yaakaar ne nag. sëriñ bi mën na koo def. nekkal ndax ginnaaw ku nekkal yàlla. suñ borom da lay nekkal. te moom mii nag nekkal na yàlla nag. te yàlla mi mu nekkal sax yëg na ni moom nekkal na ko nag. ndax kër boo ci juddoo. magoo ca. te am yàlla num am num la ca def. da delloo yàlla njukkal gi. ndax fii kat. kër mag moom la. kër mag moom la. njaboot gépp a ko bokk. ñoo ko bokk. waaye nag su ko sëñ Modou cëralee nag. téyeloo ko mu téye. ko gis. te ñëpp di ko gis. teg ci seen bët. loolu. rëy na ci moom lool. kon mi ngi sant bu baax. mboolem ku fi dikk daal. yàlla na sa aajo faju amin waay. jaa'iran wa baatinan bu loolu weesoo nag. bu loolu weesoo nag. ginnaaw cant gi ma sant taalibe yi. gi sant taalibe yi. ak xarit ak soppe yeeg ñëpp. mi ngi sant ay bokkam. liggéey liggéey bi. ndax liggéey bi wéetu ci ndax mokkam yi bàyyiwuñ ko liggéey bi. dañoo takk seenu laxasaay ànd koog moom. nee rakku yaayam a nga nële. mag yaayam a nga nële ma nga nël toog jàkkaarloog moom ak beneen rakku yaayam ak njaboot gi yëpp kon loolu ak cant la att bii nag dara lépp a ngi fii moom ab géej nag ab géej nag ci duggee noo ci sëmbe rek noonu ngay tooye moom ñëpp xam nañ ne ñi ci ëpp bokk. waaye ñëpp xam nañ ne ñi ci ëpp bokk. sëñ Modou du sëñ Modou Aïcha. bokk na kenn ci jamono bokk na kenn ku yàlla bind ci jamono ji. nee na moom am na ci lu leen nañ. te nee na dana ko wax léegi benn firnde bu gàtt. te nee na ko dégg feneen fu dul ci moom. waaye feneen foo koy dégg it. ku yàlla baaxal lay doon. waaye du doon n'importe qui. nee dafa am benn bis. taalibeem ay ay di daanu ay àndandoo. benn taalibeem di daanu ay rab. benn magam indi ko ci moom. benn magam indi ko ci moom. daal ko wan sëñ bi. daal ko wan sëñ bi. sëñ sëñ bi gis ko. sëñ bi gis ko. daal mag ji. daal na mag ji. doxal ba génn dëkk doxal tuuti ba génn dëkk bi. dina am mbooloo moo dajal. dana am mbooloo moo dajal. danañ war ay fas. danañ war ay fas. sol yu weex tàll. sol yu weex tàll. boo dikkee ba den ak ñoom. boo dikkee ba denn ak ñoom. na ngeen nuyoo. koo ci nuyu nag. koo ci nuyu nag. bu la tontoo waxal ak moom ne ko sëñ Modou Aïssa ma yónni. seetal lii rek waa ji génn dëkk bi. di dox di dox. koo ci nuyu nag. koo ci nuyu nag bu la tontoo waxal ak sëñ Modou Aïssa ma yónni. seetal lii rek waa dëkk bi. dox di dox. ba dajeeg mbooloo mi. ñu war fos. soli wax tal mu xuus seen biir ne asalaamaaleykum kenn ne waaleykum salaam mu ne ko sëñ Modou Aïssa li ah. mu ne kooku de ku mu yónni. kooku daal ne def la mu wax. daa war a def la mu wax. daal ne bàyyil ma woo diw sax ñu tër ko rendi ko ko dal. daal ne bàyyil ma woo diw sax ñu tër ko rendi ko ko dal. te la kenn xamul lu ah lolou yang koy doge a dégg sëñ Modou Aïssa nag bobu boobu maa koy soko deg seigne bi bobu graw na waaw ak yenen yo xamne doko wax nak ci radio bi ñu diko deg dedet déedéet war ngeena sante yalla yàlla war ngeena sante sant yàlla aju ci man rek mbolam ko aju ci mom mi war ngaa sant ndax ab yalla bu topé yalla da ko jébal bopam jox ko mbiram suñ borom téyel ko lépp. kon ëtt bii. sëñ Baara dafay dox ba taay. ak i tànkam. ngeen tëj seen tànk yi. di ko teg ci tànkam yi. xam nga loolu. ak jagle digg digg la mën a doon. xool jumaa ji. fii ci jumaa ji la bokk. ñi daan siyaare ji dox ay kilomètres. ñi daan siyaare ji nag di dox ay kilomètres kilomètres. di dal foo kenn kenn xamu ko. fii bu la neexee dugg rek dugg lu baax ñëwaat duggaat. fukki yoon ngay siyaare ndax kër suñ Modou gi moom ci jumaay ji loolu ay jagle la. kon na ngeen góorgóorlu lu baax. na ngeen yàlla. te bañ ko bokkaale dara. na nangoo liggéey. te mooy tootooñ. te na maandu it. bu ko defee. li ci des nañ ko bàyyeek suñu borom tabaaraka taala bu loolu weesoo tamit euh, sëriñ bi nee na amel na ñëpp ak cant. lii nag wax ko léegi. lii nag wax naa ko léegi. suba la màggal gi. lii du màggal gi. lii de lu màggal ma. wooteegu nag. dama doon doon bippe. sëñ bi bippe bi baax na de. waaw ah, ni ngay bippe de ni ngay bippee baax. kon sant na ñëpp. ndax daayira yi day bañ a lim di juum wala muy fàtte kenn li bàyyi kii di bàyyi ki waaye daayira yëpp sant na leen. bu ko defee nag bu ko defee nag. Euh, njaboot gi it. njaboot gi it. maa ngi leen di biral ak cant. mi ngi leen di biral ak cant. mooy soxna yi ma yàlla dénk. mooy soxna yi nga xam ne moom la yàlla dénk. mu war sama diggante sama borom mu war a mottali digganteem. ak boromam ci ñoom. ñu jàppale ko ci lépp nag. bu baax nag. bu baax nag nag. ndax ku ci ne ba may ñëw. ndax ku muy ñëw. la yéene te mën ko. la def nga ko ngir sëriñ bi. loolu. lu rëy la ci moom. kon sëriñ nee mi ngi sant bu baax. soxla joor nag ren. soxla joor yàlla dogalut mu yegsi. waaye ay jëfam yegsi na ci waaye ay jëfam yegsi na. moom it mu ngi koy sant bu baax ah sànq lay laaj sama numéro sax woo nan ma ci kaw soxna kii ndey ne ma soxna joor a ngi laaj sam numéro ah waaw kon jeex na bu loolu jeexee ah, soxna ndumbe mii toog nga xam ne ah, bii mooy jëf bu njëkk ci kër gi mu jëf ko ci màggalu Tuubaa sëriñ bi mu ngi koy sant bu baax di sant ay mbokkam ginnaaw waar ginnaaw bu mu santee waajuram mu jigéen wi moom mi xam na ne saa su ne rek am na lu mu koy wax ci waajuram kon nag lii mu jëf rëy na ci man rëy na ci moom addi bi mu yëkkati jox ma ko addi ji jox ko ko yaa ngi naan addi waaye ñëw na bu yàgg ah kon ñëw na sama ah, waaw dama ko dégg woon ah soxna Ndumbe gaaw na addi ji ci biir bu yàgg kon nag kon nag. sant naa ko sëñ bi sant na ko bu baax. jàmbaar la jàmbaar la. intellectuel la kilifa la fa mu ne kilifa la fa kon ab sëriñ. day war daa war a am lépp bu ko mënee. daa war a am lépp sëñ Bass Bara ma ne woon ab sëriñ lépp la yam lu baax lu ne da ko yam. jamono ko laaj. xaritu golo sax. xaritu dagan na ci jamono ji. dagan na ci jamono ji. boo soxlaa ca kaw. nga yónni ko fa nga yónni ko fa. ab sëñ de sëñ bii lépp lay am rek ab sëñ dëgg piir lépp lay am de kon bu ko defee mi ngi koy sant bu baax euh, jàppale na ma ko moom it féete na ko fépp dégg na ndigal dégg na ndigal bàyyi naa tere noonu rek la ñu ak kilifa kon lii mu def ci pàkku sëñ Modou Aïssa bii dana xam ne sëñ bi rek la ko defal bu doxee ñaari jéego rek wala ñett dana xam ne sëriñ bi rek la ko defal kon nag mi ngi jaajëfal ñëpp. bu ko defee lee mu doon wax ci këru Mbàkke Kajoor gi nee na léppam rek sëñ Modou ko koy wax. gannaaw diir gi mu ne woon na nga ko def te bu mu bu am miir. ginnaaw gi diir gi mu ko waxoon te ne ko na ko def te ba mu amul miir. diir googu nag. yàlla dogal na yegg si ci. ba war nañ cee jublu. maa koy fàttali ñëpp. léegi mi ngi koy fàttali taalibe yëpp. taalibe nag du nekk ab yaafus. jàmbaari fàkk tëdd la war a doon. góor la war a doon. kon bu ko defee. liggéey bi liggéey bi. feebar bi rek a taxoon moo waralan mu taxaw ba léegi. kon jàll na bu yàgg ndax feebar bi jàll na suñ. mbàkk kajoor lañ ko jëkk lancé. keroog suñ jataay boobu. lu mu néew néew. taalibe yi lañ fa jaayante. ma nga fa tege. yaakaar naa quatre-vingt-quinze boo ko booleeg li fi génn tey. Saliou dana xam lu mu toll. liggéey bi nag. ko yor. Saliou ko yor. Mor Diba. Diba. ak Gora Gueye. fii fii ci Touba. ak Jibi ma ca Ndakaaru waaw. sëriñ bi dana fa yéen yor jëwriñ liggéey bi ngeen di jokkoo ci biir liggéey bi. ab kër sëriñ kat lu fa nag lu fa ne. taalibe yi rek ku fa indi. kon góorgóorlu lañ ci bu baax. ku ci feeñ nag. sëñ Baara xam ngeen ko faj aajo moo ci gën a gaaw ku ci feeñ da nga ne fàng nag sëñ bi nee na ku ci feeñ nag feeñ leen ci nag ku ci feeñ rek dootoon na bu yëf yaa ngoog bu defee saaliw leeral lépp ñu tàmbali ñu tàmbali bi waaw sëñ bi de comme tàmbali nga ci bàkk bi ba am lu génn miir bi de pare nag Touba lu fi tàmbali mu yegg <laughs> sëñ bi Touba alhamdulillah Ah, sëriñ bi mi ngi gërëm presse bi fi daje yëpp. ak ñëpp rek. xam naay suba nag la yëf yi nag. waaye sant na bu baax. di gërëm ñëpp nag. di sant ñëpp. di yàlla yàlla nañ ko teewe ay déwén déwén yu bari lu ci waay jëf. gis na ko. rëy na ci moom. xeebul seen dara it. lépp egsi na jot na ci kon yàlla na yokk te barkeel te aaju yëpp faju yàlla mën na ko kon bu ko defee bu ñu jógee fii bu ñu ñaanee ba noppi xéwal yi noppi na ngeen xéwlu waaw di continuer yëf yi rek moom euh, bu subaa rek euh, dégg nga yëf yi moom bippe bi la mais bu subaa la ligne bi dox carrément sëñ Touba day branché lépp euh, kon jërë ngeen jëf euh, sëriñ bi sant na gërëm na Saliou dégg nga ko euh, waaye Mbàkke mat na xam naa yi day dara ah de Mbàkke lépp baax na waaw kilifa yëpp a ngi koy woo waaye ñu ngi koy woo ba ba tey xam naa suba da fi gis ay personnalité yu bag ndax sëñ ëboo moom gaa ak ñëpp ko soxla fi ne fii ne moom mooy sëriñub jamono <laughs> gaa yi xam nañu ko <laughs> gaa yi bu bureaucrate yeeg yooyu sëñ ëboo la ñuy wër wa merci jërëjëf wa wa merci journaliste yi yéen it jërë jëf wa merci ndeysaan yëf yi neex na te bippe rekk la suba la kii bi moom ligne bi di dox waaw maire yi bëgg a faloog yëpp yëpp ci élection yi sëñ sëñ Abo la ñuy wër <laughs> euh, Saliou mooy mbokk taalibe yi nañu gën a jaajuwaat gën a ci li nga xam ne ndigal rek moo wóor taalibe day am day am sëriñ bu koy jox ndigal ñu nag sunu sëriñ bi ndiggal gum ñu jox nañ ci gar sunu bakkan gi ba lépp mat ak mbokku taalibe yi ñu koy àndal barke Cheikhul Khadim ñun amuñu lu dul sëriñ Touba waaw liñ fi jot a dajale nag sëñ bi waaw man na cent cinq mille six cent soixante quinze dajale nañ fi cent waaw cent cinq mille six cent soixante quinze waaw loolu nag dañuy santaat bu baax ndax xam naa ne gaa yi waaju ju ko waaw ndax sëriñ bi nu mu ko bëggee rek noonu la koy amee moom mën na ko defal boppam. 95 mille ak 100 day nekk day nekk 105 waaw 180 ah, waaw waaw dañuy santaat rek ndax moom mii mun na ko defal boppam mais daf ñoo bëgg a yóbbaale géew ku lay yóbbaale géew nag bul xaar maanaam mu lay waxaat ñun ñëpp bu ñu si jógee dañoo war a jaayante waat xamaat li ñu sëñ bi defal sëñ Tuubaa dañ koy jëfal sëriñ Saliou Mbacke nee na kuy jëf addiye boobu ngay joxe sa bàmmeel sax yooyu ñuy wax ci biir suuf du la lekk sëñ Saliou Mbacke ko wax ci boppam moom sëñ Saliou Mbacke kuy joxe addiye la wax sax yi nekk ci biir suuf duñ duñ la lekk mu ne bàmmeel dina lëndëm lool mais addiye rek moo ko mën a leeral sëñ Saliou Mbacke moo ko wax de sëñ Saliou Mbacke mu ne addee mooy fekk bàmmeel bu lëndëm crise mu leeral waa kuy joxe addee nag waaw kuy joxe addee sëriñ Touba moo wax moom sëriñ Saliou Mbacke ndax sëriñ Touba Cheikh Saliou moom moo waxoon jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëriñ Touba defoon ca mag ña don taka yelloowuñu ko ñu barkeeloo ko sëñ Saliou Mbacke waxoon loolu moo tax sëriñ Touba ne asalihu lazi yu kamil yu amal nee na man saaliway mottali sama yéene su ma doonee saaliw la sëñ Tuubaa wax a saalihu si yu kabil yu amal nañ santaat bu baax a baax jëmm ji waaw du lépp la ñuy wax nag ci rajo waaw du lépp lañuy wax ci rajo mais jëmm ju baax a ngi nii waaw waaw <laughs> jërëjëf Mbacke dem Mbacke Kajoor ak eh, kii eh, Touba Diak ma ànd ak daara ba ñu demee ma leeral ko ne ko sama soxna am na ñaari yoon mu dem ñaari yoon mu dem ëmb ma ñëw wax ko mu ne ma dañ na ma ne ko nag dafa nekk ci benn weer mu ne ma dañ na te doom bu góor ngay ta ngay am barki Cheikhul Khadim ba ma koy wax weer la am weer loolu nag taw féex la boole gi ma boole moom Serigne Touba jëmm ji man lépp maa ngi koy gis li may wax lépp maa ngi ci teg sa mbët ndax du ma ragal kii sama doomu nijaay la ba ma jébbaloo jour boobu la jébbalu ndax xam na man doxuma dara ci loo xam ne maanaam lu ñàkk fayda barki Cheikhul Khadim sëñ Tuubaa lañ gëm sëñ Tuubaa lañ yaakaar lañu wul kii ku ànd ak moom bul calculer bul bul tiit bu ragal ndax Serigne Saliou moo ko waxoon du ànd ak ku ragal ak ku yàkkamti jëmm ji day suñu Serigne Touba day suñu Serigne Baara day suñu Serigne Modou Aïssa day suñu lépp. ci yoonu sëñ Touba yàlla def na nag jour premier safar jeudi alxames la woon si laa am doom bu góor ma tuddee ko sëñ Modou Aïcha premier jour safar mooy alxames bi ci yor-yor la ma yàlla jox doom bu góor ma tuddee ko sëñ Modou Aïcha loolu nag tawféex la loolu nag jagleel la comme niñ ko waxee ndax fi ma bàyyeekoo la Serigne Touba dimbali ma wommat ma ba boole ma ak sëñ Abo moom dama koy sant te samay mbokk yëpp nañ ko mbokk sant ko moom. barki Cheikhul Khadim te liggéey bi Mbacke nañ ko def ni nga ko bëggee barki Cheikhul Khadim nga ñaanal ñu rek Mbacke waaw maa ngi gaa yëpp koy àndee ñun ñëpp. waaw ngeen ko xamee noonu barki Cheikhul Khadim ndax sama xol moo fees Mbacke barki Serigne Touba maa ngi tubaat bu baax Mbacke gën. sa baay bu baxé kiko jur bax ba jurom ñaar ba li gën ñew lo dal suñ suñ tu na ci sa gis ngeen sank ab policier mo fi ñek ya ko indi Baye Sall policier ñewat ma fek micro ci Baye policier ñewat ma jëlé micro ci Baye policier ñew jerrycan bi xalé dañu roto roto roto rot ba tas barke borom touba une heure ba léegi ma ngi ma ngi di rot lo dugg nañ kër yu ne di root di xaaraan ndox waaw fii moom amul dara xaaraan rek boo xaaraanul doo am gis nga li nga def nga feesal ko ba mu fees mbokk sëñ bi ñu bokkal benn ndey seen ñaar yee ñaar ñoo bokk ndey ak baay muy Jean Pauline yaayam sama mag lay seyal moo moo leen indi kon nag mbokk am na solo fu mu mën a bokk te nag ay chrétien lañ man chrétien laa woon ba mag magum jëm dem armée ñëw lépp chrétien ba gis nga fi ma mujje jànguma tus dara laa xamul ci lislaam lu dul li ma li ma jële si Sëñ Abo mu ne ma nii laa bëgg nga doxee ma doxe noonu moo tax may waxee nii nii laa bëgg nga doxe may doxee ni mu bëgg may wax ni mu bëgg kon nag sëñ Basiru gudd fan te wér jawrin gudd fan te wér xiiwaru Serigne Touba doole maam Cheikh Fall barke sëñ Bara barke Cheikh Modou Aïssa dina leen wàllu ba ngeen yëg ko barke borom Touba kii dem danga xejul ci nit gudd fan te wér barke borom Touba njaareem billahi waaw waaw bégal la abada ku leen meray la bégal la Yeah.